mbokk yeeg euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu and beeg la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci biir seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne xanaa dellu santaat yàlla bu baax moom mi ñu kattanal ba ñu ñëw teew julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur bu wér gërëm suñu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie di ci hôpitaux yeeg ñuy weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ma yërmandeem jégal leen seeni i bàkkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm rawatina xalif général des murit di ko ndokkeel di ko sargal ci màggal gi ñu génn di ñaan itam yàlla nañ ko teewe ay at yu baree bari te rafetu fekkin dëgmal gàmmu itam di bésu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ciy ndokkeel itam euh, bépp kilifa diine boo xamante ni euh, yaa ngi ci réew mi ndax l'islam bi benn la waaye di ñaan itam yàlla nañ ci yegg ak jàmm salaam lu ñu ci jaamu sunu borom yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na yàlla nangul képp koo xamante ni yaa ngi ci rew mi jamono bi nga toog jàkkaarloog ñun di ñu setaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ñi ñuy déglu itam ci 88 point 4 ci rajo bi itam ñu ngi leen di bàyyi xel waaye bàyyi xel itam ñi ñuy suivre via les réseaux sociaux rawatina ci Facebook ak YouTube ngeen am ko en direct la 2STV ndax jumtuwaayu xarala yu bees yi ñun kenn du dem ñu des loolu moo tax rek fu waay mën a cuq rek da nga fay fekk 2 mbokk ngi bitim réew war wërsëgam fa la nekk wala jàpp ne ne fa la nekk yàlla na ko yàlla yombal ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar ñoom ñëpp ñu nekk bitim réew di leen ñaanal jàmm waaye itam di leen ñaanal sutura xéewal yàlla sàmm leen ba ñu dellu siwaat ci seenu njaboot ndax looloo leen daqal lu mu mënti doon kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak la 2STV sa su ne ñu yegg si nag samedi fas yéene delluwaat ci biir kër gi waaye nag biir kër gi fas yéene waxtaane jikko yi jikko yiñ ci tànn itam euh, léeg-léeg jikko caay-caay gu sew gi nga xamante ni day am ci nit ñi rawatina ñoñ média bu ñu ko waxee nag dañuy delluwaat ci réseaux sociaux yi ndax li ko waral euh, du dara lu dul rek euh, mbir yi nga xamante ni ñu ngi koy def di ko siiwal di ko partager di dugal nit ki ba mu dugg ba wax ba noppi nga dagg ca la la intéressé daal di koy dugal ci réseaux sociaux yi naxa naxa bi mel ni soxna mbayan bu ko gisee rek day jàppee ne kook loolu la wax te fekk na booba amaana demeewul noonu la ca commencement ba buñ ko jëloon boole kook la ñu dugal ci réseau ba amaana nit ñi duñ ko sikk ñu am nag koo xamante ni moo ko dund dund ko dund goo xamante ni tey dañ ko indi ci plateau bi àndandoo ak moom waaye laataa may sori rek damay daal di jox Oustaz Alioune Mbaye mu nuyoo moom laa àndal tey ci émission bi ndax faw ñu waxal ñu nag diine ci tuumaal nit ak tooñ nit nan la mel waaye tam ànd ak ki nga xamante ni moom moo dund mbir mi incha allahu taala kon Imam Ali ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sama Oustaz New Look <laughs> namm la plateau bi namm la <laughs> jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum asalaam spectateurs yi ak auditeurs yi origine SA yéen it maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di leen ziar di leen ñaanal jàmm. di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër. Mm-hmm. ñaanal borom kër gi ak soxnaam. Mm-hmm. ak mboolem ñi nga xam te ñooy jàpp ci liggéey bi. ak ñi nga xam te ñëpp ñu ngi toog ci seen poste téléviseur parce que a seetaan ak a déglu. nuyu itam sunu jigéen bi nga xam te moom mooy invité bi. Euh, ñaanal ko dal ak sëkki nag mën a joxe lu ñu mën a dégg. Mhm. ñaanal la yow émission bi yal na nga ànd ak moom gën a gudd fan. amiin amiin ndax taaw jëkk a judd jëkk baax. Mm. tey plateau yëpp am na jigéen di def waxtaanee kër. Mm. te yow yaay ki ko fi jëkk a tàmbali. ndeysaan kon nag wax yàlla jinax ju jëkk a jóg rek mooy jinax. Mm-hmm. waaye jinax yëpp jeneen a ngee jeneen a ngee sunu doyen Xaadim Samb bi jógee léegi ci plateau bi. ndeysaan noonu la koy waxee. Mhm. kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax di la kontaane nga di ñu gunge ci kër gi ci biir ak ci biti. yow it yàlla la fi yàlla bàyyi yàggal la ci sunu kanam yàggal la itam ca euh, Sud FM. defal la fa ay martaba yu kawee kawee ndax euh, sa liggéey am na solo lool. alors euh, lébëb barñi bi maa ngi laa nuyu di la bàyyi u nuyoog mbokki téléspectateurs yi. <laughs> asalaamaaleykum waa Sénégal. Mm. asalaamaaleykum monde entier. Mm. maa ngi nuyu ñëpp di mm. ziar ñëpp mm. di jox ñëpp seen wàccuwaay mm. di baalu axatam ñëpp di sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. euh, may profité si occasion bi daal di wax ne daal na ma ñëpp a baal man baal naa ñëpp baal nga ñëpp mais yow li nga def bay baalaate laa xamul dinaa ci ñëw <laughs> mu ngi noonu 88 la 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen ci biir émission bi li waral tey ma indi ko dama yàgg ànd ak moom defe naa tourné naa ak moom coow li coow li fii mhm. ci équipe bu ndaw rabbin bi nga xamante ni moom laa àndaloon coow li coow li boobu maa ngi ko doon wër mais gisuma ko parce que date bi daf ma réer mhm. euh, mu nekk nag euh, comédienne nekk koo xamante ni day yëngu ci wàllu théâtre nekk itam koo xamante ni macha allah fu mu toog nit ñi duñu ree xëy na moo ko yóbbu nit ñi duñu ñepp mhm. na moo ko yóbbee li nga xamante ni moom moo am mais nag alhamdulilahi rabil alamin dara ñaawul waaye nag sañ nañ koo waxtaane jël exemple ci moom buntu baa ngi noonu ngeen mën ci jaar waaye nag Aristide dama am sama benn mag boo xamante ni euh, xelam dafa neexul macha allah mu réer ay euh, mbokkam euh, mu ngi tudd say mbaw say mbaw yaakaar naa ni photo bi Aristide nañu ko génne léegi mu ngi noonu say mbaw la tudd ku ne xam na ko Tëngéej ku ne xam na ko Nimzaat man moom ñu dëkk muy sama mag di lépp yàlla def itam xel mi demewul noonu waaye nag xamoon na seen kër lool mu réer ay mbokkam Euh, képp koo xamante ni rek gis nga ko moom say mbow moomu le nang ma contacter ci 77 534 91 85 incha allahu taala dinañ ko yóbbu ba ci ay mbokkam ndax depuis dimanche ba léegi mi ngi réer ay mbokkam te it nekkoowul koo xamante ni da daan dem te du dellu si dañ koy yónni mu dem rooti dañ koy yónni mu dem tuuri mbalit wala ñu yónni ko mu dem ndox nekk koo xamante ni mën nga dajeeg moom waaye fu mu mënti nekkit dina delluwaat seen kër donc bu fekkente ni dimanche ba léegi la réer ay mbokkam xëy na ñàkkul am na ku ko téye koo xamante ni xamul fu mu koy yóbbu loolu moo tax ñu indi ko ci télé bi boo ko laajee ne ko say mbaw nga du daf la koy wax boo ko laajee turam itam dana la ko wax képp ko xamante ni xam nga ci dara rek nga dimbali ñu ci ngir yàlla ak yonent bi nga contacté ma euh, ci 77 534 91 85 mooy sama numéro personnel incha allahu taala ma mën ko euh, jébbal ay mbokkam euh, di dellu itam di massawu Ablaye Ndiaye ngalgu Eh, ci doomu frère boobu nga xamante ni mooy Pape Ndiaye ngal gu génn àddina ni ki démb Ablaye Ndiaye ngal gu nekk fële ci diwaanu Tiwaawan di ku baax di koo xamante ni seetaanul kenn kon bu ñu sañoon eh, du am dara loo xamante ni lu ko naqari lay doon kon nag eh, Ablaye Ndiaye Ablaye ngal gu ñu ngi koy massawu doomi Pape Ndiaye ngal gu borom jàmmi Sénégal doomam boo xamante ni frère moo ko yar muy Ablaye Ndiaye ngalgu nekk fële ca Tiwaawan di fa def xeet yu baax baax yoo xamante ni ñëpp a koy ñaanal doomu frère boobu mu yoroon ko ci këram yàlla def euh, mu ñàkk bakkenam ni ki démb ñu ngi koy masaw bu baax a baax di ñaanal ki dem itam fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu bàyyi ko étudiant la woon nekkoon koo xamante ni da daan jàng jàng ba pare war a génnaat dem jàngi yàlla dogal ci li mu dogal nga xamante ni yàlla dara safu ko waaye sañ nañoo ñaanal ay waajuram Ablaye Ndiaye Ngalgu surtout ak Pape Ndiaye Ngalgu mi jur xale bi euh, yàlla may leen xolu muñ te fa mu leen waroon a féete yàlla na leen fa sunu borom féete ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Alima dañuy dellu siwaat un peu xam le temps que ma may Aristide mu kaleel ma élément bi mm-hmm. ci li nga xamante ni moom moo am ak fan la amee woon waa asalaamaaleykum waat ma dellu waat mm-hmm. euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp mm-hmm. di baaluwaat ak ñëpp mm-hmm. waa tàmbayam affaire bi de bi mu amee Touba woon tuubaa ci màggal gi Touba si màggal ak ren gii euh, sama dëkkandoo baña naan Medoune Ndiaye moo ma yóbbaale màggal bi ma yóbboo màggal ñu dem talaata bi ñu demee talaata bërset àllarba benn télé ba ñu naan euh, télé Jóob Xaas moo fa ñëw. baal naa la tur wi mais <laughs> damay bañ a tooñ jàmbur allez-y télé Diop moo fa ñëw. Mm. ànd ak ay kii euh, ñu ñëw yor seen caméra. Mm-hmm. ak ñëpp mi ñooy micro. Mm-hmm. léegi bi ñu ñëwee ñu ne dañaa def interview. Mm-hmm. Euh, wax laajte gan yi nan lañu ñu dundee waajtaayu màggal gi. bi ñu ñëwee tam dañu ma fekk sa wàññoo ma la taal. ma ña ma bokkal dal ba yëpp ak dëkkandoo yi waa dal ba yëpp. ña nga toog. mu nekk sa waañ wala nekk sa waañ wala xolli sax. Mhm. ndax booba commencé taalaguñu. Mhm. boo maa ngi yor ab carotte ila xolli. Mhm. ab carotte la ma yor. ab carotte yor ila xolli. léegi bi maa xolli. si la caméra bi ñëw. boppam niin sax la ma defoon. noonu dinañ am ka def boppam ka nekk sama wet. ñëw jox ma kool. na ma muurul. waaw si la ma tegoo kool gi. mu ne ma télé bi ala télé euh, ndakaaru du ab site. loolu la ma wax. dana ma ala télé bi Ndakaaru. Hmm. Ndakaaru la am. ah am na télé bu tudd noonu. loolu de la wax. nu tudd nga Ndakaaru la wax. d'accord. léegi bi bu ne ala télé Ndakaaru ma jàpp ne comme Bargny. noonu hmm. kër Medoune Ndiaye maa ma yóbbu euh, Touba. Hmm. ndax yor ab télé. Mm-hmm. barñi tam am ab télé. Mm-hmm. ñu naan kan télé barñi. yoo fi barñi bi nag ma def ne. boobu borom télé bi li mu wax ne télé Dakar la ma jàppe ko comme télé barñi baa ma bàyyi barñi. Mm-hmm. ndax télé barñi barñi la em. mais ba fekkoon ne dane ma. dañu kaa dugal si réseaux sociaux yi. ma ne ko denca sa caméra. waaye àggulax man foofu. dane ala télé barñi télé Ndakaaru. léegi bi mu ne ala télé Ndakaaru nag. ma ne comme man fa ma toog rek du ma bëgg damaa bëgg ñépp la parce que dangay ngay théâtre ndax damaa théâtre nekk comédienne ma doon ab comédienne mhm. le jouer théâtre si turu bopp abi barñi mhm. ma ma jàppe ko noonu rek i wax ndekete laa ma wax mhm. gis na sa laa ko intéressé mu dugal ka ñu jël ko daggate ka daggate ka daggate ka kolente ka ba dugal ko YouTube dugal ko TikTok mu wër addina wër wërngal këpp ka nekk la jël la reprendre ka nekk la jël di ko toppandaloo <laughs> xam nga ne naka la ñoo def. waaw ñun dañaa dem régie xool élément bi. lii de moo war. tey lébu rek laay wax tey. kese. <laughs> Eh, Aristide. il a xolli may rey. bàjjee ko jox ma élément bi. <laughs> il a xolli. <laughs> doon doon doon of Tidiane li faa ma ne ma koŋ-koŋ ba sooba yàlla dina mën a entré ba nii xee rabbi sama waati yal na leen yàlla may jàmm nag in ñuy ñëw tey jii dikk nu seeni caméra ak seeni euh, micro pour nu wax fii nag. wax dëgg yàlla tuwaa fakal la li ma si gën a neex nag ceeb ba dijj bi yenu tegal wallahi wal azim ngan di ceeb yaa xamante ne ceeb bi comme jaama salaam ah ñaman nu kaa jox nag ma toog ko dimba ceeb ba nii ma añ ba pare tëdd fële la fërënku ndax bépp ceeb ma lekk tey du ma ne daaw ma lekk ab ceeb de waaye ceeb bi ma lekk démb nii ba dee moom la war a dolliwaat tey fii maa fi jogul ñibbiwu ma xam nga yow kenn ñaata fan la nga def Touba. am na ma fa fan. ak yow kay kon ñibbisi woo fa nga tëddoon la farangu may yëre sax la maa jël see far oo ma ba damaa dellu. <laughs> mu ngi noonu élément baa macha allah boo xoolee nag ci milieu élément bi am na fu ñu dagg kole ko. Mhm. man loolu laa gis. ak dëgg la. Euh, euh, dañu dagg kole. dañu dagg in kole. waaw ndax am na fa ma ne li ma doon doon doon lépp ab tijaan. Mm. nun lébu yi. Mm. ba nu xesee ba bokk si benn tarixa mhm. mu la tarixa Cheikh Ahmed Tidiane si mhm. du nu bëgg a jéggaani fen ndax dañu fekk nuy waajur doon ka mhm. nuy yaay ña nàmpal doon si tarixa Cheikh Ahmed Tidiane si ba moo tax ba ma demee Touba dama naan dama uti ji tuyaaba pour togg a jox nit ñi ña lekk. Mhm. ndax loolu lii la barkeel murid yi. man dama jàpp ne man tijaan bi ba ma jogee dem. Mhm. togg yàq jox nit ñi lekk. Mhm. ña barke dina ma topp dina ma dal. te mm. kër yëpp kër yu baax la doon. merci ña la ña baax nag borom kër googu. nu fekk ji woon mu la borom kër ba baax ka yaru ka noppi ka teey. ka jullite. wallahi wal azim yàlla ma tiim ma dem na këram. Eh, accueillir bi accueil bi rek waaw ah ni ñenn eh, jàppe sa kër ga waaw bàyyi libéré no lépp waaw ndax mel ni nun noo jege noo dëkk foofu waaw ñoom ña ginne dëkk ba abal nu kër ga noonu la ma ko dundee. lii topp la fa. ndax mel ni dund ñoom dëkkuñu fa nun noo fa dëkk. d' accord lii topp ma fa tey. 88 euh, la 628 14 13 yu baree bari dafa dugg ci biir. Mm-hmm. mbiri taalibe Cheikh mbiri taalibe Mouride. ñu jël ko dagg eh, oh, Imam Ali lu tax nit ñi bëgg xol yu soosoo man man foofu laa jëkk jëm <coughs> jërëjëf alhamdulilah man de ila xolli rek moom la moom la. la xolli la xolli carotte la ma yoroon la xolli loolu laa mënta si. <laughs> da ngay wut jabari lébu nag boo bëggee dégg lébu. <laughs> mais ci biir euh, waxtaan bi. Mhm. xaw naa réer tuuti parce que man lu extraordinaire laa gisagul ci élément bi. Mhm. ndax li nga fi wax nii gisuma gisuma ñàkkul na xëy na am na lu ne ci ginnaaw élément bi. Hmm. lu ñu lu ñu waxul xëy na. Hmm. li nekk ci ginnaaw élément bi mooy. Hmm. biñ ko daggee ba dugal ko ci réseau sociaux yi. ñëpp partagé ko. dafa am borom kër. waaw borom këram dafa am tarixa bu mu bokk. dégg nga kàddu gi li ma doon doon tiijaan. waaw noonu la ubbee. ñu demaat ba ci biir. mu mu waxaat ne. bi la bu ma nee koŋ-koŋ li ma doon doon at tiijaan dina ma dinaa ubbi bunt bi. buntu boobu mën na réeral borom këram ban buntu lay wax. ma dagge sa baat jàmm dama ne lii ma doon doon ab tijaan lépp. waaw képp que ma fëgg si tarixa Cheikh Ahmed Tidiane si ma uyu la. wax bi foofu la jógee mais ñoom dañu dagg loolu ña dagg ka. kama fëgg ma ubbil ko rek la wax pour pour soo sele xol pour bëgg sa borom kër yëngatu. xam naa. léegi nag sëy ba yëngu na ba borom këram jël na ay bagages am dem. Eh, sa borom ko da laa li yeew daf cee mer waaw da si mer ye yeewi moom amagul yeewi googu la ñuy négocier ah, pour sunu jëkkër jooju ñu laal basang tuubal ko mm, xeetu tuubal goo xamante ne tabarkàlla macha allah bu ñu yegsee bari ñi rek dina xam ne tuubal nañ ko ndax ñoo ko tooñ mais dagg boobu ñu ko dagg lim ku ma fëgg ci tariixa seex ma wuyu la ñu dagg loolu dindi ko mm-hmm. Mm-hmm. pour lan loolu en tout cas jërëjëf euh, Alima jërëjëf soxna Mbaye waaw ñaari côté yëpp am na ak yedd gu ci war a am Mm. ak jubbanti rek goo xamante ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm. Touba ñëpp ci lañu bokk. Mm-hmm. Tivaouane ci lañu bokk. Mm-hmm. nañ di mooy tëndiku di wax ci mbiri tariqa ndax mag ñi dañoo liggéey liggéey bu rëy bàyyi fi. Mm-hmm. ñun añ rek moo ci war. dara warul jukki ci benn gémmiñ bu mu war a jur benn naqari. ndax sëñ Abdou Lahad mu baax mi radiyallahu taala anhu dafa wax ni. ñett ñu bokk ndey ak bàyyi kii xees kii ñuul kii xeereer. bu ca kenn beddi koo. bëgg a xas kenn ak ndëm wala mhm. bëgg a tam kenn mhm. dafa yeewul waaye la na ca ñoom mooy li na ci moom mhm. kon fooguma ne ci côté boobu la euh, Touba bu doon murid donga du fees catholique sax dañu dem wallahi wallahi dëgg la jàmbaar jooju wallahi dëgg la sëriñ li mu liggéey ci diina ji liggéey ko ci askan bi añ la boo xamante ne ñëpp mën nañ ci suur kon jikko yi lañ war a defaraat rek ba bu ñu dematee ci yu mel na yooyu wuy ji wuy ji bu mel noonu. Mhm. ñu fexe ba mel melokaan wi nga xam ne. Mhm. moom la sëriñ bi woote. ndax léegi raxe bi ñu raxe diine ji. Mhm. ak folklore beeg caaxaan yeeg pom yi. bari na folklore dafa dem a dem ba. ceeb bu nu togg ba mu ñor xom mu ñu sànni ci suuf. muy xajam. léegi dafa xaj léegi mënatoo xàmmee lislaam bu set. ndax caaxaan yi nga xamante ne moo nekk ci làmb ji. nekk ci sunu xew yeeg suñu ngénte yi. léegi boo koy xool ci gàmmu yeeg ci màggal yi léegi mënatoo ko xàmmee. dem daanaka leen leen li ñu fay wuti sëñ Tuubaa dafa wax ni na ngeen ñëw santale ma sama borom. Mm. képp kon sama mbég sa mbéga. Mm. bu bis bi dellu si te na nga ma santale sa borom. waaye nit ñi nañu fay demee. ak ci jàng alxuraan ak bernde. jàng alxuraan ndax yam fa wax yëpp. Mm. amul lenn loo xamante ne sunna mën na koo teggi. Mm-hmm. ndax bu ngeen xëyee na ngeen jàng alxuraan. Mm-hmm. jàng alxuraan kay loolu kenn mën ñi mu ko contesté. Mm-hmm. su ngeen fa jógee ngeen dem siyaare ji armée li mhm. sa xel dellu ci dee mhm. kii may siyaar nii di ko ñaanal maag moom waxtu wi daaw ñoo fi ànd ñëw mhm. soo fa jógee ngeen dem siyaare ji soo fa jógee ngeen seeti bokk gi lii lan moo ci lu ñaaw dara koo bu ngeen paree togg ñam jox ko jullit bu ngeen paree ngeen bernde nag giléem ba ci ginaar bégle jéggalu ñaanal borom dëkk ba ñaanal sañ mun taxaa ñi bis ndànk bu ko defee tëgg meeg fecc mi ñu bàyyi ko fii bu fekkee bu ñu fekkee bu ko mën nu koo bàyyi su ngeen yoonee dëkk yi nga xamante ne noonu moom moom suñu dëkk bopp la nga dëkku laïcité la hmm. ngeen hmm. dëkk ngeen fi bu mel ne dëkk ba yor dëkk ba ak porte problème ñi muy wax lool te ñu di déglu hmm. ñuy wax wax loowuñu kenn yenn yi dëgg la xaabaaba gi ëpp ma taañaañal gi ëpp na waxe bakkan gi ëpp na parce yow yaa nga fa demoon di togg di jaamu ji yàlla télé boobee am na ñeneen ñu war a introsé mm-hmm. parce que folklore bi mooy mooy loolu parce que fi ne ñi war a wax léegi wax lootuñ leen mm-hmm. ku ñu for rek ne loo xam ci nangam ku ñu for rek ne loo xam ci nangam sëñ Tuubaa li ko liggéeyam dëgg dëgg dëgg moo doon defar nit te gis nañ doguma la ci euh, réseaux sociaux yi li xew ci màggal gi yëpp gis nañ ko ñi sëriñ Tuubaa ñor ak li mu digle woon ñi mu ñor ña nga ca woon mais yeneen ak yeneen ma nga fa woon yoo xamante ne ni nga ko waxee waroon nañoo mën a interroger loolu gëstu ca la lan moo sabab loolu. mais fekk ku nekk ci waañ wax waxam man je crois que xëy na da nga comprendre lul foofu. li may doon doon taalibe cheikh. Mm-hmm. ku ma fëgg ci yoonu. Euh, tarixa cheikh mm-hmm. dama lay wuyu. waaw dañu dugal li may doon doon taalibe cheikh. Mm. ku ma fëgg ma wuyu la. léegi lu léegi loolu lu ci ñaaw ku ma fëgg ma wuyu la c'est-à-dire. loo ba luñ luñ la luñ la jàppee. baal ma Aristide. waaw Aristide baal ma mayaat ma élément bi. may ma élément bi Imam Alioune dégluwaat ko. ma déglugul man wax ju leer voilà parce que li waral ñu dindi tariixa cheikh bi dindi ko ci. waaw loolu moom man moom a jaaxal parce que loolu moo bëgg indi problème bi. waaw kañ. xam nga li ma la wax. waaw Aristide mayaat ñu ko Imam déglu ko tuuti. li ma doon doon doon doon ab tiijaan li faa ma ne ma koŋ-koŋ ba sooba yàlla dina ma a entré ba nii xee rabbi sama waati yal na leen yàlla may jàmm nag in ñi ñëw tey jii dikk nu seeni caméra a seeni euh, micro pour nu wax fii nag wax dëgg yàlla tuwaa fakal la li ma si gën a neex nag ceeb ba dijj bi yenu tegal wallahi wal azim ngan di ceeb yaa xamante ne ceeb bi comme jaama salaam ah ñaman nu kaa jox nag ma togg ko dimba ceeb ba neex ma añ ba pare tëdd fële la fërënku ndax bépp ceeb ma lekk tey du ma ne daaw ma lekk ab ceeb de waaye ceeb bi ma lekk démb nii ba dee moom la war a dolliwaat tey fii maa fi jogul ñibbiwu ma voilà élément baa ngi noonu macha allah barakallah li may doon doon taalibe ku ma fëgg ci cheikh ma wuyu la. mais lan moo tax ñu dindi ñu indi ku ma fëgg ci cheikh bi ñu dindi ko. Mhm. ma indi ma wuyu la bi man kopp collé boobu man moo ma jëkk a impressionné. foofu wax <coughs> maanaam dafa mel ni kon góor gu ma fëgg ma wuyu lañ ko. xaar na doon góor gu ma fëgg ma wuyu la lan la. mën na doon bu ma neexee xàcc ci yoon wi ma nekk. Hmm. mën na doon loolu murit bu ma fëgg ma wuyu la ma bàyyi tijante waxewuñ ko que ne ku mu neex nga dem fii ku mu neex nga dem fee sa à dire yàq bi ñu bëgg a def soosale bi ñu bëgg a def ci biir. Mhm. man man loolu loolu moo ma jëkk a jaaxal. man affaire bi dama ko jàngatee. dama jàngat ne ab jaxase la ñuy andi. waaw kay si diggante a Cheikh ak yoonu murit. waaw kay. man loolu la ma si jàngat. Ah, d'accord ah, bu dee loolu la. waaw. bu dee loolu libre nga dem tey bàyyi tarixa Cheikh dem ci murit parce que Cheikh moom ku ko jàpp ba mu jàpp la. Mm. <laughs> dootoo dem feneen. Mm, Cheikh ah, moom campagneul kenn téyewul kenn. Mm-hmm. moom ku ci bokk di nga ci bokk te di nga yëg ne bokk nga ci. Mm-hmm. ku ci bokkul itam da ngay falang rek nga dem. Mm-hmm. sëñ Tuubaa it ku ko jàpp ba mu xam ne jàpp nga mbër. li bon nag mooy mu sab sabi na bay na saak laa ilaa haawulaay wala ilaa haawulaay boo ko fenn. mel na xob fu la nga la falang nga jëm fa. mais Imam Aliou Euh, est ce que nit ki dafa amul droit ci doon tiijaan wala mu doon laayeen màggal xewle. mu dem mu dem yëkkati ay kàddoom. xam nga man des fois nit ñi nit ñi dañ may faral di wax benn kenn xamul loo doon du gaaw pour ñu xam ko. loolu parce que ku ñëw dinaa bokk ak yow. mbay ñooñu ñëpp ñi defaroogul la loolu lépp ñi defaroogul la gis nga. xam nga marirandoo yi. waaw. ak ñëpp ci bokk. ak fekkee ma ci boole yi. waaw ñooñu ñoo yàq. gis nga Sid Ahmed. Mm-hmm. di doomu El Hadj Abdou Aziz te te ba muy penkook sëñ Mountakha. Mm-hmm. kilifa diine ci guddi gi. Mm-hmm. délégation kilifa diine yëpp ci Rawdu Rayaahiin. ba ñuy waxtaan ci kër gu bees gi ci yoon wi. te sëñ Xaadim euh, Silla doon waxtaan ci jigéen ak l'islam. loolu moo doon thème bi ci guddi gi. jigéenu murit ci ci liggéeyu yoonu murit. ji ci sutee ay ay jigéen ñoo xam ni. kenn mënu leen dem bàyyi leen. Mhm. ay jàmbaari fàkk tëdd ñuy liggéeyal diina ji. Mhm. Mhm. li yàq mbir mi nag mooy ñi nga xam ne dañuy bëgg ni dañ cee bokk. te bokk gépp ci màggal gi la. bu màggal gi jeex nga nekk te la nga nekkoon. lu sëñ Tuubaa yàqu la yow a lu ko naqadi yow a mm. ci ngay xëy di ci gont guddeeg bëccëg te kenn la cee génn lépp ci bàmba ji la mm. sa mbax sa mbax ci bàmba ji la mm. di ko yàq di ko foye looyu mooy yii ci xew nii mm-hmm. dañu yaakaar ne dem di togg ko xolli mbay mbir mi sëñ Tuubaa wootewul caaxaan wootewul ay fo déedéet jaamu yàlla la woote bis bu mag bii nag sëñ Tuubaa yàlla jox ko ko fayee ko ko mm-hmm. képp ku fa dem di fa fayit loo ca góobi daa ko gar da nga ko gar lu leer laa leen wax am na solo suñu kilifa yi ñu am nii man man wutuma lu neex ma sàmba wutuma lu neex boo gis samay laaj di laaja di laaj mm. sama wax day dem parce lii may wax nii mm. bu duggee youtube mën na def yéeg vingt ans dañ koy tegaat dañ koy tegaat moo tax war nañ koy mesurer mm. li ma lay yeddee mooy artiste nga yow miin nga miin nga écran xam nga waxu télé xam nga wax ku a a loo gën a prudent rek mu gën a mhm. baax loo mhm. gën a prudent mu gën a baax gis nga boo gisee kilifa yu bëri sëñ sëñ Babacar Sy Mouhamed Mansour maa ngi koy mhm. nuyoo passage danaan leen lii ma wax bu leen ci dagg dara tegee leen ko ni ma ko waxee wallahi azim bu ko defee kii discours am foog média bokk ci voilà parce xam na li ci média discours bu ma bu ma kenn mottalil bu ma kenn montel bu ma kenn commentéral tegee leen ma nii ma ko waxee ku ko man ku ko mënul bàyyil bàyyil loolu dafa dafa xam parce que na li ci nekk. bi muy door toog dafa ni. Mm. lu ma waay di wax bañ ko ko diggit bul ma ko déey. Mm. man du ma du xuumtoo. Mm. ba ñu rey ma ci ak ron lal. Mm-hmm. loolu ñun ñëpp ñu xam ne ñoo nekk ci média. war nañ ci gën bàyyi xel surtout nag yéen artistes yi nga xamante ni. dëgg na exposé mm-hmm. ñuy théâtre musiciens yi. ak euh, artistes yi laa ci dans le cadre général. man man yéen ñëpp seen dund dafa metti mm-hmm. waaw surtout. seen sëy yi dafa ne ci mbedd mi. Mm-hmm. seen doom yi ne ci mbedd mi. Mm-hmm. seen njaboot gi ne ci mbedd mi. presse bi daanaka fi ne man mi kenn xamul na daanaka tekkiwuma dara. ci bëti nit ñi. sax mën naa def ci sa suuf ay tooxi doon du feeñ. bañ jógal la waaye yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ne ci télévision yi. di théâtre ñi nga xam leen. buñ la jógalee doo échappé de. gis nga ñaanal yàlla rek mucc ci. waaye buñ la xasee ba ba def la courant bi topp la ba ñu am juróom-benn weer adduna bi génn ci yow. mais Imaam Alioune. waaw faaw tam nit ki nga xamante ni moo jóg pour yàq nit ki. Mhm. parce que kii ay waxam copier-coller la. waaw day théâtre accident bi mën na dal ku nekk. waaw man man maa ci def bi ci neex man. Mhm. man boo ma dama la bëggoon a interviewé man la du ma du kenn duma ma dañu bëggoon wax ki sa liggéey beeg yooyu man la fukkat ak ñett fukkat ak juróom maa ngi ciy wax sa vie privée ak sa njaboot man ne ko ñëpp xam nañ ne dama daan jaay fataaya daan liggéey ci usine jën bii di xolli crevette jaratu la bind ku bëgg interview demal ca gone yi nga interviewé leen man kenn du ma interviewé très xam nga li ma la wax mais nag euh, fokk fokk nag nga ñëwul ni ci ki nga xamante ni dafa bëgg yàq ni parce que moom biñ ko interviewé ba pare mi ngi doon jéem a seet pour jot Ablaye Diop Xaas nan la demee waaw parce que man bi ma laa nangu sax. mbokk yi mën nañu participer ah nañu ñu xoolal téléphone bi. 88 628 14 13 bi ma laa nangu nit ki interview ma. waaw ndax ñëw ne ala télé jóob xaas. waaw ma ne ko aw de yàlla moo la indi waaw ndax man sax dama soxla Diop xaas. Mm-hmm. guddi yi passé yëpp ba ma tëddee yor ma téléphone. dama seetaan tiktokam si pasam dama see duggale seetaan tiktokam. Mm-hmm. parce que jóob xaas dama gis ne mu ngee faj. Mm-hmm. affaire yi. jinne ak rab mm. te jombul am na ma si ab malaat mm-hmm. te malaat boobu mm. man Jóob Xaas ma gisoon ka wala ma déggante moom mm-hmm. ut rendez-vous si moom yóbbu fa ma malaat mm. mu fajal ma ko loolu moo gën a yokk tax man nangoo waxaa borom interview mm-hmm. mais si kaw mu ne ma teleb ndakaaru la waxuma ne da kaa dugal si benn sit yëfi na leer ma mais télé Ndakaaru la télé yëpp ay dem ci site ah. no parce que télé Bargny man gisuma fa loolu. Hmm. du dem ay ay ay lii la ay branchement kii kanaal yi. xam nga. waaw Bargny la em télé Bargny Bargny la em. Hmm, ngor am na Yoff am na digguma ko si benn sit hmm. waaw si ma ñàkk a xam tam. lii xew si wàllu. Euh, ay sitax yi ay ay publication xam naa loogu tëm ma ma gëlëm si. Mm. bal tax nit ki dikk ma micro ma wax renk rek pour soxla. Mm-hmm. jóob xaas. man jóob xaas la moo ma gënoon a tax. léegi bi affaire bi jàllee ñoom ongale. léegi nag bi affaire bi jàllee. Mm-hmm. moom ka ma interview woon. waaw avant mu mu di ma interview dama nekk numéro Diop xaas ndax man na ma kaa jot. Mm-hmm. mu ne ma manuma la kaa jox mais jëlal moom numéro. léegi man ba ma demee. Mm. wax waxte moom ba ne ma jox la numéro bi ma jox la ka. li ma laa wax nii dama ko tegal si ma wàllu feebar bi ma bëgg faj lo mhm. mu ne ma koon jëlal numéro bi mhm. mu jot maa joxab numéro am mais moom ma ma joxoon ab numéro am keroog ba ma ko ba affaire bi duggee sur internet bi mhm. TikTok YouTube fépp mu jaar fa si la ma ko oo nekk diw man na tudd turam ma ne ko diw dabbaax sax la tudd dabbaax moo yoroon caméra bi moo ma jël moo ma jox ab numéro téléphone. Mhm. moom dabbaax la tudd. Mhm. ma ka jox bi ma jox am numéro am ma téléphone la ma ko jox mu dugal si numéro bi enregistré si aw turam. Mhm. mu ne ma man dabbaax la ma tudd léegi ba ma demee u def ma signe ma man a wax a jóob jox la numéro am. ba d'accord rek ma jox la numéro am. rek joxe joxe numéro am. loogoo andi loolu moo jiitu. léegi après nag si la ñëw interview ñi si waañ wi ñëpp. ba si kaama yóbbu. sa Touba. Mm. ba si ñaar dëkk sa kër ga yëpp. est ce ñoom seen bos jot na jàll. déedéet xaaral ma jël ki ci ligne bi mbokk asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw retour bi dafa faible mbokk yëkkatil kàddu gi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa soxna si ñu ngi siyaare. ñu ngi delloo ziar tur bi ak fooy woote. Ah, maa ngi tudd Cheikh Faye Baye Fall maa ngi nekk fii ci Ziguinchor. Ziguinchor Cheikh Faye. Cheikh Faye Baye Fall. Baye Fall sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax. waaw ñu ngi doole ziar bu wér. Mhm. maanaam li ma li may wax ci sama xalaat ci soxna soosu génn. waaw. kooku mënta jaxase kenn ndax kooku comédien la. waaw. kon maanaam li muy jàpp ci waxam bu leen ko jàpp muy waxi nit wax yu am maanaa. dëgg la. xam nga nit eh, murit. Mhm. képp koo xamante ni da nga koy jaxase ak benn tarixa mhm. benn murit bu ñuy jaxase ak benn tarixa dëgg la. doo murit dëgg la ndax Serigne tubaa hmm. mboolem tarixa yi fi nekk yëpp daf cee jaar am muy yor am yëfi boppam. fenn hmm. fu ci nekk mu mu yëkkati ko ba ba ba ñëpp seen ko. dëgg muy xaadir muy tijaan. Hmm. te ci xaadir si boppam ci la waajuram yore woon. mu ànd ceeg moom. ba gisatu ko mu ñëw ci wàllu tiijaan dëgg la ba ni mu yëf amee yëf yi boppam. Mm-hmm. kon ko kenn mënu ko ku xam kan mooy Serigne Touba wala nga doon murid kenn mënu laa jaxase kenn. Mm-hmm. ndax yow lépp nga. Mm-hmm. ñun murid lépp la ñu. dëgg la wallaahi kenn mënu ñoo ko jaxase kenn. Baye Fall ku baax nga. dégg nga. ñun lépp la ñu. ndeysaan. ki nga xamante ni day def ay comédien am. waaw kooku képp koo xamante ni yaa ngi koy bàyyi xel sax pour man. ma non non la nawloo moom daf doon waxtaan. dañ ko waaw koo xamante ni kenn waru koo nawloo kenn du ko jox bës maanaam di ko teg bët. ba di ba ba nit ñi di ko jox jox maanaam di wëlbati seen xalaat ak seen xel di ko def ci moom. di ko jaxase. nit ku mat di kenn du ko xool dañ koy wan ginnaaw. dëgg la. wasalaam. jërëjëf jërëjëf mais li mu wax nii. Baye Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax may nuyu sama chère yi Jatu Samb ma nga foofu ca quartier Auschwitz ca Ziguinchor madame Diouf maa ngi koy bu baax a baax di ko kontaanee. Mhm. Euh, léegi man. Hmm. waxuma ne dama jaxase indala jaxase murit gi. non dafa comprendre dama ne kii doon. ki doon dagg may vidéo bi waaw. moom na déglu. kii doon dagg may vidéo moo bëgg a defar ab jaxase. voilà mais du man maa la jaxase. moom moom ndax man maa mujjee juddu. est ce que xam nga ne moom moom ni mu waxee ni xamul ne yow yaa toog déedéet kii xamul loolu. xamul ne yow yaa toog voilà. mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko allo. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ah, soxna Mbayang naa def. ñu ngi sant yàlla bu baax tey ziar. sant alhamdulilah man la Roxee Dieng ma xam ci madame Dieng dëkk bari Roxee. madame Dieng. Roxee Dieng ma xam ci madame Dieng dëkk Bargny. Daba Dieng yow rek la ñuy déglu. Bargny Bargny madame Dieng. madame Dieng waaw Roxee mooy Daba. <laughs> waaw maa ngi leen di gërëm bu baax. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. allo. ay ca yow rek la déglu Daba. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah kontaan nañ ci émission bi. jërëjëf jërëjëf. kontaan ci li ngeen dalal suñu mbokku léegi moom. Mm-hmm. di gërëm suñu kilifa boobu toog. Mm-hmm. waaw damay rafetlu ci kàddu yi rek. Mm-hmm. ndax àdduna moom. Mm. lii rek moo fi ne critiqué moo am ci àdduna. dangay defar ñii ne waaw nga defar ñii ne déet. defal lii dëppoo li neex yàlla ak lii dal sam xel. gis ngeen ñun dëkk bi ñu dëkk muy dëkkub lépp hmm. rawatina Bargny dañoo bëgg ay wax ju sew. Hmm. Bargny. Hmm. Tijaan yi ak murid ñëpp benn lañ kenn mën leen a séparé. déedéet ku leen di séparé sax yaa fiy jóg waaye du tee ñoo fi ne. dama ne ñun bu ñu amee ay cant sax ñun murid yi Tijaan yi dañuy ñëw. Tijaan yi bu ñu amee maanaam seen i jàng murid yi dañuy ñëw. macha allah bay ab digal ku nekk xamoon. oh euh, wax ji am na solo am na yar am na mm-hmm. teggin la macha allah. waaw man il faut ñu dawal ci compréhension waaw rek. waaw mooy euh, daanaka ki mujj. waaw junj na sax li ma bëggoon a ubbee. wax ci mm-hmm. mm-hmm. mooy comme yow artiste nga. comédien. comédien waaw. loolu. ñu ko xam. mooy ñiy bégle di reetaanle. ñi nga xamante fu ñu toog nit ñi dañuy ree dañuy bég. ci man élément bi di gisuma ci lenn lu nit war a xalaat lu ñaaw. Mhm. lu war a mën tasu kër. Mhm. wala lu war a mën tax kër di mer di mu mee bi bagaasam dem. Mhm. xaw ma nag la ca ginnaaw. maamam la mu yëg mbaa la mu jàngat. moom it la ma koy ñaan. mooy jigéen des koy suturaal. te da nga koy dimbali. mën nga am sax soxna mu juum. nit ñëpp daan bu ko déggee bu ko déggee bu ko déggee. nga ñëw uuf sa jabar ni cel boo koy yedd ci biir néeg nga yedd ko ci biir néeg. mais li xew ci réseaux mais est-ce que entourage am sax. entourage bokkul ci dalal dalal nañ ko ci noonu. non non c'est-à-dire. Mm. tey Oustaz Alioune. Mm. man mën naa jël benn décision boo xam ni. Mm. dama naan lii la. ma am ku nekk sama wet. sama entourage. ne ma déet bu ko jàppee noonu. bul gisee ne noonu la waxee. nañ ko oyofal cest à dafa nekk mbir moo xamante ni man man sax dama ciy réer. waaw kii seetaan day réer keneen ak keneen day réer. mais entourage am. daf ci am solo parce que kii bii rek papaam sama càmmeñ bu yàgg la te xaw moo ni moo ko jur papaam ba ma ko euh, defe naa ni ba may am ay vingt ans vingt et un si laa xam papaam ba démb laa koy soog jotaat téléphone ndekete moo jur kii nga xamante ne daf ma bëgg ba di wax yaay bi problème amee bi ma ko waxee ma ne loolu il faut ñu dem leeral ko parce que Bargny ak Yoff ak dëkkule bi yooyu benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais am na ci loo xamante ni moom bu ko leeralul ci gémmiñu boppam du mës a leer te réseaux sociaux dafa doy waar Imam Alioune dama bëgg nga waxal ma ci léegi ku nekk télévision nga. waaw. Oustaz Alioune Sall nee na nañu moytandiku partage bi. waaw. partagé wu ñuy Yaasin. waaw partagé wu ñu ayatul kursiw. waaw lan la ñuy partagé ba soxna Mbaye làqoo la mu wax. Mhm. lan la ñuy partagé ba ba la ko El Hadj Ndiaye traité. création lay doon je veux damay tudd ñoo xamante ni ñu siiw lañ. lan la ñuy partagé defoo Fatou Guewel pour lan loolu pour lan ku nekk doon télé léegi. loolu loolu mooy mooy jaaxal ñëpp léegi ci yi jamono parce que fi mu ne nii tey dafa am télé buy fay. saaga ah, ah. xam nga naa ne wax ni dafa am télé buy fay saaga. télé buy fay. day fay day fay saaga. day fay pour ñu teg ay saaga. maanaam ku saaga ñu fay la. moo tax léegi fi ne yow mii di wax lu baax di wax li defal la kër yeeg li wax jubale mm. suñu la dugalee ci biir YouTube mm. doo am ay vie parce que ay onze ay set ngay am abonnement doo am dara léegi léegi boo taxoon fii léegi tudd kilifa diina wax ca lu ñaaw mm. balaa jant beesoo ñëpp xam la ñëpp fa koy statut ñëpp fa koy président boo gisee télévision booba ñëw xool na xam na ne yow mii artiste nga la nga wax pour la nga wax aayul. non xamu ko woon sax ma bëggee foofu sa baat xamu ko woon. mais mais mais na ci biir nit ñi gis na nga xoromu di waxtaan nit ñi retaan. mu ne kii bu ma ko interviewé dina dina mën a wax ko. waaw parce que ñoom dañuy tànn ku ñu war a saam. Mm-hmm. nagu dëj bi toujours dañ koy xool. Mm-hmm. kuy créer am na buzz de. waaw nagu dëj bi toujours dañ koy xool. waaye waxoo fa la mm-hmm. waxoo fa lu war a mën a tax nag lu ñuy partagé. ak di ko dagg ak di ko monté sa jëkkër tam. wax dëgg yàlla moom tam la taxoon ñu muur ko may la ko jox la ko. daf la hmm. waroon tane. am na loo xamante nii jarul tasub sëy am na loo xamante ne jarul gàddu bopp fu ne nga jëm fa. di mer di pour fu foo jëm. te <laughs> tam jarul raamaka kii. goro li ngay wax wax nañ ko ba pare. sunu goro la na na la uuf. waaw man ko. man yàlla rek tax ma man sama bàmmeel bi laa tiim. dëgg la booy boobu mu fi jógee fii ku ne partagé ma waaye naa fexe ba li ma wax. non sunu goro la sama goro la man. man sama goro la. xaar ma ñëw ci te man dinaa wax ak moom. waaw xaar rek. xaaral ma dimbali kooku ci ligne bi mbokk allo allo. allo salaamaaleykum waaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax tey ziar. ñoo ngi leen di ziar bu biir a biir a biir. Hmm? ñu ngi lay delloo ziar tur bi naka la ak fooy wootee. ah Sane ngay ñeent goro Alioune Sall boobu toog. ah as as as as sama góor. bëgg ceeb ñu ngi lay nuyu di la ah, ziar. as ah wallaahi. loolu sant soxna si. ab caameen la de. man noo sant bëgg ceeb. ah waaw baax na yow nekkal ngeen di jël ceeb bi rek ak mboq mi. <laughs> non non bi cere ah yaa ci cere ji. waa cere bi. bul ma ci may mbuus de lekkal rek. am saareen la de ñoo nanu kazaalika jërëjëf Sarr Oustaz Alioune. waaw la béykat Sarr Sarr. kontaan nañ lool waa jooju dugg sànq il n'a rien compris. Hmm. waaw waaw moom moom xoolul élément bu baax sax parce que vraiment nit kenn du ko stigmatiser ki toog nii. Hmm. moom dafa waroon na vraiment déglu. waaw émission bi li ko tax a jóg. dëgg hmm, dafa comprendre lu day am ay mais comédiens yi ay nit lañ comme ñun. dëgg la. ñu la doy na waar daal. ndeysaan dafa comprendre rek. kontaan kontaan nañ ci émission bi. ndeysaan merci beaucoup jërëjëf lool te leeral dafa baax gis nga lii dafa bëri. dëgg la mm. dañuy jël interview dagg ko collé ci la leen neex. looloo sabab waxtaan wi sax nag. ñun loolu moo ñu tax a jóg. waaye mm. du question ay je pense que ne ay murit ak tijaan. dëgg la dëgg la daal bu ñuy débat bi moom buñ ko yóbbu foofu. Mm. merci beaucoup Sarr internautes yi ak. vraiment réseaux sociaux yi dañuy jël waxi kilifa yi wala koo xamante ni hmm? la wax ñu kole la leen neex teg ko. dëgg la loolu moo tax émission bi jóg ci loolu la ñuy waxtaan. dëgg la Sarr. très lool. vraiment na solo sa participation. ñoo ngi lay ziar ñoo ji ñor na ju tooy ji. <laughs> waaw ñebe ji léegi mu ñor bu soobee yàlla. waaw dinaa fa jaar. incha ma dugal fenn benn point tuuti ci sama jëkkër jooju waaw. man man na maa wax ne Bargny maa fa gën jëkkër. ndeysaan man Alima. Mm. man na ma kaa wax en haute voix. Mm. man maa fa gën jëkkër. Mm. parce que ma jëkkër muñal na ma nangul na ma. ndax tey jii ba ma duggee si milieu théâtral ginnaaw yàlla yonante ba yàlla moom moo ma jox fa weer moo na ma doxal ba kenn laal la ma diggaale kax moom mu door ko mool wallaahi kon nag booy Abdou Arab Ndiaye ma Samba Laay Kumba yaay Njaak ama jigéen Sàlla yaay Binta wan ñëw erreur du ñàkk. waaw nul n'est parfait. waaw booy sang. ama yërëm ama safoo ama faale. lii lépp lii lépp baa gisee mu am. alaka al moom ala mbañam rus. waaw waaw. bëggul jabaram ña di ko partager monde entier. Mm-hmm. moo ko def moo waral tey jii mu mer mer mi mu mer te mer mi dara ji ndax moom xam na ma. ku li xamee jaala. billaay ñaar fukki at ak ñaat ñett. du benn bés du ñaari bés. ànd ngeen 23 ans de mariage. waaw booy sang yal na sa jàmm yàgg. amiin yàlla ba kenn dox si lu diggante. amiin jébbal na ma ko yàlla yonanta ba xalifa Malick. waaw yàlla na nu yàlla jàppale musal nu si saytaane. amiin amiin si daraja yonanta bi. sallallahu alayhi wa sallam. xanaa séeri ay wax day fin. Ah, waaw yow xaaral Mbaye. foofu foofu farankulaayu na li gi tagg de man ku ma ko taggoon ku ne. jërëjëf Alima jërëjëf. ndeysaan Alima jërëjëf. waaw. billaahi sama xol sedd na. yaa woyef Mhm. ci télévision nga toog. adduna yëpp di la xool. loo moom xam nu mu tudd booy booy nan. booy Abdou Aram Ndiaye. booy Abdou Aram Ndiaye Massa Mbax laay Kumba yaay Ndiak ama jigéen Sall yaay Binta wan. daan nga ko way ci ndaw la dëgg de booy Binta Seck mi la yaay Sowru Diagne. kii moo la moo la moo bee ngeen booy. waaw kii mënoo ñaaw si xare bi ah. déedéet te du si ma sa ñaaw. déedéet te man mii la jabare itam du ma si ñaaw. waaw yii yëpp nag li ko ëmb moo la bëgg nu suturlu. waaw ndax kantan gi néew na dool waaw tey ba ma duggee si milieu théâtral pour am la ma faa gañe nu bokk ka ma ak njabootam loogu si li ma si gën a poussé loogu da si bokk te jébbal na ma ko borom bi subhaanahu wa taala déggalu ma la dara nag ba ma la digg fa sore sori si lii ba ma la ba ma la bi ma la juree ak léegi mhm. ak bi ma xamee sa baay xam naa ni fu baax nga bokk wallaahi macha allah jom rek nga am. billaay yor say turu bu ndaw rabbin. Mhm. demoo dikkoo nag di daan sa doole. wallaay Ablaye Diop xaas. Mhm. maa ngi lay woo xam naa ni moom xam am naa numéro mais man bu ma ko woowee du ma ko jot. mais maa ngi koy woo. Mhm. murit yëpp nan la dampan ah? ah. da ngaa demoon Touba. <laughs> sàkku ji te barkeb Serigne Touba dina la dal incha allahu taala doo ko dee ci benn yoon. mais daal man euh, fi may waxee rek mooy. Euh, euh, li nga ci wax rek ñooñ média ñooy yàq ñooñ média. waaw. da fekk ku siiw nga bokk moom yoon bi moo tax nag war nañoo seetaat suñu bopp imam Ali parce que xamul tax waaw association des lutteurs am na association des pêcheurs am na association des baykat am na ba ci association des maçons sax indi naa leen fii ci plateau bi xoolal média ni mu baree ci Sénégal association des travailleurs de média amul parce que bëgguñu xamante bëgguñu waxante lu baax bëgguñu defante lu baax ndax lan naa seet jour boo xamante ne rek soxna Mbayang def na benn défaut ma jël ko reproduire ko set gis nga am na benn période boo xamante ni ñooñu ñu ngi liggéey ak ñun tey mais yàlla def na ma suma daje ak ñoom fii ci tele bi muy waa Marodi TV du ma leen baal ba yomal xiyaamati ak baran mukk ci këru àddina duma leen baal ba àddinay tukki waa Marodi TV parce que amul ta dañu jël benn titre bind soxna Mbayang Thiam def trois points le sexe de mon mari subhanallah xoola jooju wax. ma di leen wër mënuma leen gis. subhanallah ñoom waa Marodi TV ñoom ma ko waxal dossier yéeg yëpp ñi ma mi ngi ma denc porte naa leen plainte et tout mujj ginnaaw gi ma ne plainte sunu borom moo ëpp lépp. Mhm. lu tax nitu média war a mën a yàq nitu média imam Ali lu tax nit war a mën a yàq nit. pour lan lan la lay jëlee. <coughs> barakallah jërëjëf. xanaa gën a ñaax rek sunu mbokk yi yëngu ci wàllu média. Mhm. ñu bàyyi xel ni. alam yaalam bi anna a yara mm. yow mi dugg ci sa kanamu ci sa bureau di mm-hmm. dagg di monte mm-hmm. alam yaalam xamuloo ni anna allaha yàlla yara yàlla ngi lay gis mm-hmm. yàlla ngi lay gis de li nga dagg ak li nga monte li nga coppi collé lépp yàlla ngi gis li nga ci yéene itam ak li nga ci bëgg def lépp yàlla xam na ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suturaal jullit yàlla suturaal la barke yonent bi xam lu ñaaw noppil Mm-hmm. ku xam lu rafet waxal. Mm-hmm. waaye li ñuy wax multi média ak multipartisme dafay dafa dafa ñëw ci dafa ñëw bett ñu. Mm-hmm. te préparé wuñ ñu. waaw parce que dafa ñëw bett. parce que parti xoolal parti yi ak mouvement yeeg. yëpp nga xamante ne lépp seen bët ñu ko teg ci palais bi. ñu bëgg a falu. te du mën a nekk. Mhm. xoolal lii lii média. xoolal mhm. lii rajo. Mhm. lii télé bu njëkk ba Moussane man bi ma mosee jë bi ma jëkki jëkki jëkki invité RTS. bàyyi ma Samba Nguer Massaer. ak Abdou Kader Diokhane. <clears throat> ak a Sène Sarr. am na émission bu doon def tuuti woon ko taalif doomi réew mi. waaw foofu lañ ma mu jëkk invité ci rajo ma tiim micro di wax. mais gis nga tabaski googu ba demee suñu dëkk. ñëpp a ñëw di ma seet si. ndax li nga génn télé waaw ndax li ma dégg ci rajo bi ñii parce que boo xamante rajo dafa am valeur. Mm-hmm. télévision xoolal plateau télévision ni mu chéré. Mm-hmm. nga toog ci télévision. dafa yàq nit. Mm-hmm. thème bi yëpp ci kaw nit nga koy teg. ci kaw nit nga te nit koo ko nekk fa mënul défendre boppam. boobu ñaaw beneen ñëwati gën a ñaaw mooy télé buy fay saaga wax naa la ko léegi. tey bu fekkee ne ay nombre de vie ngay wut. doo ci wax lu baax. déedéet. nit ñi dem ba ci revue de presse mhm. léegi revue de presse dana moom moo dàq léegi journal bi léegi. waaw parce nee nañ léegi boo dégluwul revue de presse day mel dégluwoo journal dara saf safal yi ci dégg. Mhm. xoromal yeeg poobar yi. Mhm. yi nga xam ne moom lañ ciy def yoo xam ne boo kii li ñuy wax nii. soo ko xoolee ci journal bi journal bi nekku ci. donc yooyu la nit ñi gën di xool di léegi dañ koy dañ koy partagé ci groupe yi. nit ñi di ko seetaan. léegi nag yàq der ci laa bëgg a ñëw. tuumaal gor. tuumaal as gor mi ngi fi naxas tuumaal li nga wax léegi ci ñoom diw sàngam. bëgg mm. moo tudd seen tur. Mm. ci loolu ñu wax ba xamal nan sexe xamu ñu ko waxee. waaw loolu. Mm. lu ko gën a ñaaw amul. xoolal loolu yàgg na. li ma def nii yow mm-hmm. sa sëy bii bu fi doxoon bu fi maaree talimaa a faxas këpp yàlla bu mu fi doxee. tas mm-hmm. Mm-hmm. lii yëkkati sa sidditu jéewu sëriñ bii. ba mu mer. ay bokkam merle ko. nga taxaw fii tuubal ko tuub gu wér. wax wax ju rafet. ku boo réen doo ko man waaye ñooñu la ñu bëggoon tas ci sëy mhm. di ci yàq ay diggante di ci yàq ay bokk loolu média tax woon jóg kooku bu sëy bi tasoon tey jii lan moo ci ak xam lan moo ci ay doon ay daanam li ciy doon daanam la ca jëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mm. képp kuy dox ci diggante ñaari way dencante di leen séparé mm. yàlla dina ndox sa diggante ak àjjana leen séparé di leen séparé mm. ba na nga séparé kee ak kee nañu séparé woo nga séparé sa diggante ak àjjana jërëjëf kon sëy sacré la. Mm-hmm. nañu bàyyi sëy jaambur yi. Mm-hmm. nañu bàyyi jabar jaambur yi. Mm-hmm. siiw moom am fi jëkkër moom. waaw problème la. ni yéen li Mbaye wax lay dem il faut yéen artistes itam ngeen bàyyi xel loolu. seen mariage da ngeen bëgg lu rëy yéen da bëgg lu xumb bu ngeen def ay mariage woo nit ñi ñu ñëw toog. te ñi toog ñëpp. mariage ba am na ñu la ko yéene. takkaay yaag yéenewul. Mhm. yëpp day day génn ci ci ci site internet yi. man léegi dem naa ba keroog gis naa ko siiw koo xamante ni biñ ko jébalee borom këram dañ ko filmer dugal ko ci internet bi. subhaana rabbika wallahi alazim non gis nga débat bi oh, Imam Ali. dafa day waar Aliouma moo fi dëkk am gaañ nag ñëpp. yàlla xam na ko ci matelas bi fi mu tëdd ñu koy ñu koy tagg. su muur ko sëru njaago mi ngi tëdd. mu ngi tëdd ñu filmé ko dugal ko ci TikTok. nga defee ne kooku mën na am doom ju baax. Hmm? ah réseaux sociaux jur wi nga xaw wi. Hmm. teg ci biir réseaux sociaux yi. Hmm. doom jay leemu ca boobu jumbox kan lay doon. kooku mën naa doon wali. mën naa doon borom xam-xam. mën na doon kuy décanter situation PM. jigéen ñi nañu xam ni magasin bi yàlla di liggéeye mooy jigéen. Mhm. am na biir jumbux yoo xamante ne wàll yi du ci tëdd mukk dana mhm. leen bàyyi xel suñu bopp am na fu leen yàlla teg de dëgg la am na fu leen yàlla teg bu baax yàlla fonk na jigéen lool mhm. ndax yonent bi nee na maa akramahunna illaa karimun wa maa ahanahunna illaa laayu baadool kàppañóor rek mooy toroxal jigéen waaye gor sang yaaram garmi gararal mooy teral jigéen moo gis ku teral jigéen rek garmee ngi noonu kon yéen itam da di jéem a tedd gis nga artiste gi ngeen def nii bu njëkk bi ñoom Cheikh Tidiane Diop di def affaire théâtrale mm-hmm. ak ñoom daaray Kocc ñoom Baye Abou Camara mm-hmm. gis nga ba léegi bu ñu ko génnewaatee TikTok dëgg la nit ñi dañuy day gën a neex day mm-hmm. léegi nee la politique bi yàqu na média bi yàqu na waaye aar bi tamit yàqu na ndax léegi ku jóg dugg ci ki war a way mi ngi way ki warul way mi ngi way lépp business lañu ko def boo gisee ñun fi ñu jël xaalis fi ñu teg xaalis foofu la xaalis àggul ndax boo amee xaalis lu ñu tudd tudd la ca lu ñuy wax boole la ca ba tax na léegi nag tous les moyens sont bonheur sax doo ko am nag xaalis tubaab ba nee na l'argent ne fait pas le bonheur mukk bari na ko am xaalis te billaay boo te amul bànneex boo gisee yërëm ko amul bànneex dëgg la moom donc euh, Alima yaakaar naa ni ñu ngi ci jeexitalu émission bi maa ngi profité bu baax a baax di remercier ki nga xamante ni mooy euh, Mber Maris Ndiaye moo jaar euh, ci tenue bi incha allah dinaa ci ñëw ci numéro bi ci léger yu baax yi muy dox tabarkàlla macha allah ñëpp a ngi koy joobee em maa ngi ñëw ci yow bu baax a baax. Mhm. Euh, yaakaar naa ni euh, servir na la de leçon. Mhm. Euh, maa ngi wax Ablaye Diop xaas moom su ma bëggee jot déjà soxnaam ñëw na ba sama kër muy sumbulu boobu seeyaguñu. Mhm. maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal jàmm ak sutura xéwal. na fexe nuñ ci doxee ñu waxtaanee. Euh, jàmm daal di am donte le coup est déjà parti li am am na ba pare. Mhm. waaye raam ci tali bar ñi bi ba jëm këram man sax ci raam bi laay bokk. wax dëgg yàlla elloo naka de. waaw booy sang rek. ah gëlëm yaa dee sax sa Touba la ma bëgg ma ña tegal ma si bëtam. <laughs> jox ko dëkkuwaay mu ah, toog nga sa kaw. jox ko ab dëkkuwaay mu dëkk na toog nga sa kaw kii li ma ko iine. Hmm. barka Xalifa Malick na dox nu dem. yaa ngi ci de. jibi maa ko iine. boy sang mi maa ko yaa ngi ci yaa ngi ci de barke Serigne Babacar Sy yéene gi ma am si aw mhm. yal na yàlla jàppale allahumma amin jàppale mboolem jullit amin amin amin kii li ma ko yéene mm. waaw yow <laughs> kii lu mu ko lu lu toll noonu ndax jël ma xol xutti ka <laughs> ndax jël ma xol xutti ka i def si lan lii paa ngi si biir <laughs> laa xelaat rek si ka jigéen ba boree bëgg ka góor rek ab xolam sedd guy. Mm. ndax waa ji def na ko sama xol bi xutti na ko xuteet. desalu fa dara te billaay yàlla ba fa dara des. bay ma bay ma jéen aw a a xutti ma xol ma xol bay ma a xutti ma xol aw. aw aw a xutti ma xol. moo xutti ma xol. <laughs> <laughs> xam nga lii moo ko dugal ci defoon vidéo bi ba ñu dugal ko. Euh, collé ko monté ko. <laughs> xam nga boo jël ko def ko montage. montel ko ci yoo xamante ni macha allah fa tabarakallah xanaa xanaa après xam naa di ma ko wéyal ab ndaw rabinde. mooy Abdou Aram Ndiaye rek. waaw <laughs> kii kooku maar uste booy Abdou Aram Njaay ne doo daw lu ko waral doo des gannaaw <laughs> noon yi di la ree eh Njaay ne doo daw lu ko waral doo des gannaaw noon yi di la maar booy ax booy ne doo daw déedéet doo des gannaaw bañ yi di la ree wallaay yal naa yokk ba yëkk si daraja yonante bi amin amin booy Abdou Aram Ndiaye li ma la éene max yàlla nga jaare fa tàggoo temps bi jeex na maa ngi gërëm nag àddina wërngal këpp <laughs> mhm. la gërëm monde entier mhm. may mbokk yëpp amul fa ma waay oowewul waaw ndax affaire bi dëgg la ka ma oo rek na ma ñaanal yi nu laa ñaanal yàlla lii doon ay ubbi ko si aw mm. li ma yaan naa yokk ndeysaan yaan naa dem sa kanam a ñaan nga ma nit ñaanal rek yaan na yàlla def mu nangu amiin te ba nangoo yaan na doon ma njiglaay si daraje Seydina Muhammad waa li ma sol nii waajal wala wax dëgg yàlla li ma sol nii nag ma taab yaay ñeneen kan amin tëgey waaw ma yaay ndax ginne àddina ndeysaan moom mu la taaw ma mm. topp si moom mm. moo ikili tey na ma solal. ndeysaan sa taaw yaay ma taaw yaay ma la ñaanal nag ma yaay ji sa àjjanay firdaws ndeysaan yal na suuf oyof si kawam amiin yal na ko yàlla xare àjjana allahumma amiin ndax jullit ma ko fa fekk añña topp si ginnaawam ñëpp bi nag Fatou Sène salon Fatou Sène Fatou Sène salon defal lu la neex ma def nii moo si musóor gi moo la si maquillage bi ma ñaanal addina gépp nag jërëjëf may mbokk yëpp bàyyi ma kenn delloo si jàmm ma jëkkër ay mbokkaam mm. ay xaritam mm. ñoom ñëpp bàyyiwu ma kenn pape bi kan mm. Fodé. waaw Kalim Dioum. jërëjëf bàyyiwuma kenn Tane Thiané. jërëjëf bàyyi Idi ma càmmañ. merci beaucoup moo toppa si man maa nampa jox ko. jërëjëf mu yërëm ma suturaal ma. Mm. bàyyi Idi fa yal naa yokk ko. jërëjëf yal na nga yokk yow tamit temps bi jeex na tàkk ñu ma koy signalé te Oustaz Alioune dafa war a tàggoo waaye Ember Maris Ndiaye ni ma leen ko waxee moo jaar ci léger bi lay Sarr desereel desereel sama musóor sax xajul ci sa cadrage waxatuma la ak mbubb mi waaw kay 77 269 25 02 ma nga ca euh, sant yàlla ci Tëngéej Imbert Maris Ndiaye ngeen am mbubb yi euh, Imam Ali ma bàyyi la nga tàggoo. ma gërëm ma papa Ablaye Wade Diop. ancien policier ancien policier. xaritu Adama Sow <laughs> papa mu ngoog ay ca tàggool tàggool Imam Ali. Imam Ali dafa jommi tey. Mm-hmm. Euh, waaw kay jërë ngeen si yedd boo demee nga góorgóorlu. waaw ngeen tuub. Mm. adduna jeex na mm. Mm. tuub leen dellu ci yàlla adduna bii xaalis yàq na ko wutunu xaalis mi wutunu alal yi nañ leen tuub te sellal corona bii nu jógee na tax ñëpp tuub dellu ci yàlla te sellal te fonkaat mag ñi te tuub di julli juróom di laab di wax astaghfirullah di rafetal say bokk rafetal say diggante say dëkkandoo di jéggal tey suturaal wën ko defee rek bu ñu ñaanee yàlla dina nu may nii ñu accaparé télé yi réseaux sociaux yi mm-hmm. ñaaw téef wërngal ko këpp na leen góor góorlu mm-hmm. ban mu rewaat ko ak njëkk ak njub te mm-hmm. yéen artistes yi mm-hmm. am ngeen ci responsabilité bu rëy rëy rëy diine ji bu leen ko ber ay doomi julit ngeen nañu théâtre sax di sensibiliser nit ñi ci yooyu sensibiliser nit ñi ak seen professionnalisme seen professionnalisme parce que ñu yàgg nañ ci ay télé yàgg nañ ci mm. waa Rési mm. kontaan nañu baax a baax Mbaye merci merci beaucoup sama goro yi euh, Assar mi ak euh, Fat sama doom moo takk doomam mu jox ma ko jërëjëf mu nga ca ngéeñeen di seetaan borom télé bi tamit gërëm baax a baax sama soxna borom bi Aziz Ndiaye man Alima doomi Barñi Elas Ndiaye jërëjëf Alima doomi Barñi soxla na la man tam maa jabar ñëpp mbooloom club monde entier soxla na mu ñëpp si lii ñëpp ku ko soxla ku ne finalement du ma a joxe numéro am waaye woo ma rek ci 77 534 91 85 ku ma woo dinaa la jox numéro am ci lépp loo xamante ni rek bëgg nga ko taxawoo a normalaat mhm. nga xamante ni moom laa àndaloon ci njiital Aristide ñoom Mbara ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Bruno ñoom ñëpp maa ngi kontaan ci ñoom kontaan ci képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun ci émission bi rendez-vous incha allahu taala semaine prochaine ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf